li nga xam ne moo yees ci bi nga xam ne moo xew ci diggante Ukraine ak Russie mooy ay ñagas-ñagas ci wàllum diplomatie yoo xam ne day gën a jëm kanam li ko waral nag ne ki nga xam ne mooy Alexandre Darchev bi nga xam ne moom lañ dénk département nord américain fee ca ministère des affaires étrangères bu Russie muy menacé américain mi ngi aju nag ci ne cette fois ci dafa wax ne bu fekkente ne États-Unis dañuy wéy di tuumal Russie ne boo xam ne day parrainé terrorisme danañ dagg relation diplomatique yi nga xam ne moo am seen diggante ñoom États-Unis ak Russie ku nekk xam na ne Union européenne gi yëpp daanaka dañoo manko woon ne dañuy sanctionné Russie ngir li nga xam ne nee nañ ay invasion la maanaam ak néewal doole goo xam ne dañ koy teg ci kaw na benn réew bu tudd bu nekk ci biir Europe moom daf ne woon sanction yi engagé wu ko ndax moom dafay continuer di jëflante ak Russie ci loolu daanañ jëfandikoo ci accord de partenariat lu ci mel ne ci wàllum énergie nga xam ne mooy ministre des affaires étrangères bu Hongrie xam le ci samedi bi weesu ne ki nga xam ne mooy compagnie russe bii tudd Gazprom mi ngi koy jox ci gaz naturel bu ëpp loo xam ne Russie ak Hongrie xaatimoon nañ ko ci ay kayit loolu nag mooy li nga xam ne moo yees ci diggante jafe-jafe yi nga xam ne am na ci diggante Russie ak Ukraine